أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naa loolu ñu ngi jéggalu samedi bi passé ñëwuñu woon dars yàlla dafa dogal am benn mbokk jullit bu daan ñëw fii ci jàkka ji di ànd ak ñun ci programme diine yi yàlla def mu wàññeeku ñu yendu woon ci nag ba ngoon jot loolu moo taxoon ñëwuñu woon samedi bi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla yërëm bokk la bu daan góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ay nattoom ak ay jafe-jafeem yépp yàlla na ko yàlla fayee jannatul firdaws mbokk yi nga xam ne aussi ñoom ñoo yëgoon mbir mi ñëw taxaw ci na leen yàlla bindal tiyaaba maa ngi laaj fan lañu yemoon
ay deux cent deux cent quatre-vingt-dix. samedi de mercredi la woon.
mercredi la woon ñoo ñu woon dars waaw damay laaj tafsir bi passé fan lañu yemoon
deux cent quatre-vingt-dix.
waaw xam naa kay ci aaya boobu lañu yemoon deux cent deux cent quatre-vingt-deux ay numéro bi waaw.
waaw mais dañ ko commencé woon ba am fuñ ci yemoon loolu lay laaj dégguma ko de hmm? fastashidu nañ yemoon wax lañ yemoon yow yéen ñaar wuute ngeen de fal yumlil waliyuhu bil add ku ñuy dimbali wax ñu fuñ yemoon hmm? mooy aaya dafa faible dafa faible kon incha allah ñu ngi hmm? wala yaaba suhada iza duu kon ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi eggali aaya bi xam ngeen ne keroog dañu commencé ba waxtu bi jot te aaya bi jeexul li ko waral nag waxoon nañ ko ci njëlbéer gi mooy aaya bi mooy atwalu aaya fi alquran aaya bi mooy aaya bi gën a gudd ci alquran ñaareel bi mooy aaya bi dafa ñëw di régler lenn ci sunu dund loo xam ne daanaka mënunoo dem sans loolu mooy sunu diggante sunu jëflante sunuy mbir sunu biir ci wàllu bor suñuy jëflante borom bi subhaanahu wa taala di nu digal mooy nun ko bind ak nu mu mun a demee ak nu mu mun a toll kenn ci ñun warul wóolu nit wala nga xeeb mbir mi wa doo ko bind waaye nañu ut ay seede nañu seedeloo ay góor yu maandu yu ragal yàlla sunu amulee ay góor ñu ut benn góor ak ñaari jigéen aaya boobu borom bi subhaanahu wa taala wax nanu ut benn góor ñaari jigéen léeg-léeg sax nga gis ay nit yu tudd sax jullit yor ci seeni gisin comme semaine bi la passé yaakaar naa barki démb tegaat nañ ko ci wal fajiri wala ci benn chaîne la ci télévision yi am na benn jigéen bu tolloon tolof tolof jëkkëram faatu woon ci wàllu miraas ba mu mujj am feebar ba mujj feebar mu dem ci benn télévision di wax problème am ñu woo benn psychologue ak benn yaakaar naa kenn kuy liggéey ci justice ñu ciy wax mais gis ngeen psychologue bi lu mu wax mooy nee na jullit yi nit ñi problème yi ñu am yépp li leen ko yóbbee mooy takk ay jabar yu bari ñaari jabar ñetti jabar ñeenti jabar loolu moo leen ko yóbbee ci biir waxam sax dem na ba ni li gën a ruslu mooy kooku jullit lay woote woo mais buggul sax di jaar ci turu yonente naan ma ni tubaab yi di woowee yonente bi ay maawumee maawumee sax li mu fi bàyyi dañ ko war a xoolaat man taal naa télé bi rek dégg nit ñi di ko xas di ko saaga xaw ma la moo ko waral jot naa ko défendre tuuti sax ci jamono yooyu fan yële passé mais démb sama soxna daf ko dégluwaat mu ne ma yow ki nga doon défendre naan nit ñi lu tax ñu koy saaga xamu musiba bi mu wax da doon corriger l'islam ma ne ko kon kay kii lii moo tax nit ñi doon ko saaga kon yàlla subhanahu wa taala ci maandu teem ci xam-xamam su ne bor nañ ko bind lan moo tax mu ne bor nañ ko bind ne bu ñu xeeb bor bi nu mu toll bu nu wóolu waaji ak mbaaxam nañu ut ay seede waaye sax bind gën lu tax bind gën mooy kii seede mën na fàtt benn ñaareel kii seede mën na dee mais bind fi mu nekk nii président Senghor li mu fi bàyyi woon boo demee archive national fekk ko lañ ko bind bàyyi ko fi am na ñu baree bari fi ñu jaar seen dund ci Sénégal ñoo xam ne histoire bind na ko soo demee léegi ifan ñu génneel la ko ñoom Cheikh Anta Diop nga xam ne ñoom Cheikh Ahmad Bamba ñoom ñoom Alhaji Malick ñoom li ñu fi bàyyi woon boo demee ak seen histoire ñoom ak boo demee gis ñu bind ko kon bind du hasard yàlla din ko def loo moo tax yàlla mu ne nañ ko bind nañ ut ay góor yu maandu ñaar ñu seedeloo leen waaye ñu bind ko bu ñu amul ñaari góor yu maandu mu ne fa rajulun wamraataani nañ ut benn góor ak ñaari jigéen mi mantar daw na min ashuhada ci ñoo xam ne gërëm nañ leen gërëm nañ seenu seede xam nañ seenu mbaax ñu tànn mi man ci ñi nga xam ne tar daw na gërëm ngeen leen mina sohada i ci way seede yooyu ñaar ñooñu lan moo tax ñu tànn ñaar ñooñu mu ne anta dilla bu fàttee bu réeree fàtte ihdahuma kenn ci ñoom fatu zakkira mu fàttaliku ihdahuma al uxra kenn ci ñaar ñooñu le ñaari nit kay mënuñu ànd fàttandoo ñaari nit kenn ki kay mooy fàtte keneen ki fàttali ko waaye ñoom ñaar ñëpp fàtte nañ wala ñoom ñaar ñëpp deewandoo nañ wala ñoom ñaar ñoom ñëpp maandu ndoowuñu loolu bariwul lu muy am kon gis ngeen aaya yu mel nii daf ñuy delloo ginnaaw delloo si waat sunu xel ñu xam ne yàlla dong mooy yàlla te alxuraan bi dong mooy dëgg te lislaam mooy diine ji wér lii lépp xoolal muy wax ci lii kon ñun suñu dund gi warul nekk dund làmbatu lu nekk dafa am fu ñu ko war a teg te tey su fekkonte ne li ñu yàlla bàyyee wàcceel ñu ko ñu ngi ciy teg suñu tànk rek ak suñuy lépp kon du ñu woon ay ay jafe-jafe wala bu ñu ko amee du bari comme tey ni ñu amee ay jafe-jafe mu ne kenn ci ñoom ñaar ñooñu bu fàttee fatu zakkire na ko fàttali ihdahumal uxra keneen ci ñoom ñaar ñooñu le waaye wala yaaba bu mu bañ ashuhadaau way seede yi isa ma duu buñ leen woowee ne leen ñëw leen ngeen seede kaay leen ngeen dem nañu ñëw nit waruñu ko tànn ci biir nit ñi ba pare seedaloo ko bind mbir mi ñu soxla ko muy chantage comme tey ni mu amee ah waxoon naa ko waaye nag man mënuma ñëwaa c'est parce que foofu dafa mettee dem mënumaa jël oto bu mag loo bëgg wala d'accord man mun naa ñëw sax mais sama oto bi amul essence ah xam nga yooyu am nga looy looy junj loolu bu ab jullit waru ko def yàlla moo ko war a gënal lépp lu mu am te lii ñu koy woo ci mbir yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala daf cee wax ne moom waru cee tayal kon suñ la woowee bis boo nekkee seede ñu woo la jógal nga dem bul tayal mukk bul yokkat mukk jógal nga dem ndax ci jaamu yàlla nga nekk yàlla daf lay bindal tiyaaba yàlla daf lay fay moo tax mu ne wala yaaba bu mu bañ mukk ashuhada way seede yi bu ñu bañ mukk mukk seen bu ñu ko def ci kaw suuf suñ leen woowee rek nañ jóg dem témoin li ñu leen sant isa ma duu bu ñu leen woowee yàlla mu ne wala tas amu bu leen tayal bu leen yokkat subhanallah waaw li yëpp ci nattu yi la rek yàlla nañu ko yàlla teggil ba léegi rek réew mi soppeekoogul de gis ngeen ko amul amul ku portable amul am.
sa changé nañ président de waaye changé gu ñu jikko yi mu ne wala tas amu aw tamillu bu leen tayal minal kitaabati ci bind bi walaw kaana daynu saxiran donte ne bor bi dafa tuuti bu leen tayal bind ko walaw kaana al mab daynu saxiran mablaguhu don nu mu mën a toll rek yàlla nee na bu leen tayal ci bind ko bind leen yàlla moonu binduloo kon bind leen wala tas amu an taktubuhu ngeen bind ko saxiratan dafa tuuti aw kabiratan wala dafa mag bu dee téeméer nañ ko bind bu dee ñaari junni nañ ko bind bu nu tayal ci bind bind ko bind li yàlla moo nu ko wax yàlla mënoon naa wax rek bu leen tayal ci bind ko waaye gis nga dafa indi sax baat yi mu ne saxiratan moo xam dafa tuuti aw kabiratan wala dafa nekk lu rëy mu ne na ngeen ko bind ila ajalihi mu jëm ci ajalihi mu jëm ci dat bi ñu waxante bu weer bi deewee la wala bu amee ñaari weer wala ñaari semaine wala ginnaaw suba nañ ko bind ila ajalihi ba ci rendez-vous ba ca dat bi dat bi ñu waxante yéen ñaar dat bi ngeen waxante bind leen loolu waaw yenn saa yi sax bu ngeen ci defee ay heure ngeen ngeen bind heure bi waaw suba ci ngoon ginnaaw tàkkusaan nañ ko bind parce que loolu la wax bu weer bi dee insha allah la cinq nañ bind loolu ila ajalihi nañ ko bind ci date bi comme loolu la ñu waxante borom bi subhanahu wa taala yemul ci loolu mu ne ñu zalikum lii aqsatu moo gën a maandu indallahi ci yàlla aqsatu moo gën a maandu indallahi ay adal adilu moo gën a maandu fii hukmillahi ci atte yàlla wa shar'ihi ak shari'am lii day mbokk yi mooy li gën a jub mooy li gën a baax ci atte yàlla ak yoonam gi mu yoonal ne na ngeen ko doxale ne nii kon nag atte yàlla moo gën a maandu bépp atte alaysa allahu bi ahkamil xaakimin tontu bi mooy balaa yàlla atteem moo gën a maandu atte yépp moo gën a baax atte yépp moo tax mu sant ñu lii tey lii su fekkoon ne ñu ngi koy doxal ci sunu dund kon jafe-jafe doon na néew léeg-léeg nga wax ne am ku wax ne même am na ñoo xamee ñu ngi doxal yëfu lislaam sax mais dañoo nekk ci ay jafe-jafe waaw yàlla waxul ne bu ñu dundee lislaam du ñu am jafe-jafe waxu ko de waxu ko ñu bëri dañuy jàpp ne fi mu nekk nii bu ñu ne woon Sénégal dëkku lislaam la sharia la ñuy àttee kenn dootul sàcc aha kay kenn dootul fen aha kay kenn dootul njaaloo aha kay dina am ñuy rëcc di ko def waaye xam nga lu ñu bëgg mooy mu néew yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci dundam dagg na loxo mais bëriwul caw na ay nit ci njaaloo mais bëriwul rajm nañ nit mais bëriwul loolu lañ bëgg mooy société bi comme tey Sénégal ni ngeen di déggee sàcc nañ rey nañ nangam nañ agressé nañ dañu bëgg loolu muy néew soo toogee weer wi nga dégg ko nga toogaat ñeenti weer juróomi weer doo ko dégg loolu lañ bëgg loolu mooy àtte lislaam mooy mbir mi mu bañ a am moo gën suñ demee ba munta ñàkk am mooy léeg-léeg ñuy toog ay ay ay fi mu nekk nii am na yenn dëkk misaal Arabie Saoudite comme ni ngay déggee crime ci monde bi day néew nga dégg Arabie Saoudite loolu xew na fa wala bis bu nekk ngeen dégg Arabie Saoudite Arabie Saoudite Arabie Saoudite loolu day néew daanaka boo ko déggee balaa ngay déggaat te am na yoo xam ne sax nag doo ko fa dégg loolu mooy aar société bi mooy aar nit ñi mooy lislaam dafa ñëw pour aar nit ñi moo tax ci islaam kaso amu fa place yonent bi dund na ba dee tabaxul kaso utul ay gardien kaso parce que kaso day yokk ci dëkk frais kaso day yokk ci budget bi Sénégal ñaata kaso moo fi nekk Sénégal ñaata kaso moo fi nekk à peu près ñaata raison la ñaata raison la 14 kon raison bu nekk am nga prison bu mag laa wax de waxuma police yu ndaw ndawaan yi nañ jël 14 yu mag yooyu rek yooyu tey ñañu fa tëj ñaata lañ ñi leen di garder ñaata lañ courant bi ñuy taal ndox mi te ñooñu tëj duñ ko fay de ñooñu dañuy am courant di lekk di naan di utiliser ndox mi du ñu fay gis nga encore li ñuy yokk ñi leen di garder ñu leen di fay loolu budget la ba pare ñu tabax tabax yi budget la ñaata la loolu kenn daa xam nu mu toll ay milliards te amaluñu société bi njëriñ dañ fay génn gën a yàqu dañ fay génn da ngay gis ku dugg kaso di génn ne teel ma sama place rak tak dem dikk maa ngi ñëw waaye bu kan jël sama cellule yal nañ yàlla aar bu dee ci lislaam nag li nga def lan lay def rek nga dem ñibbi da ngaa sàcc ñu xool lan moo tax nga sàcc ñu bëri ci lislaam aussi dañu yaakaar ne buñ nee nit sàcc na rek dañoo war a dagg loxo bi non attekat bi day xool kii lu tax mu sàcc ndax dafa xiif wala dafa mar wala wala yan cause ñoo nekk ci ginnaawam ak li mu jël bu fekkee reewande la rek ak comme band yi nekk fi banditisme la ah charia dal ci koom su fekkee nag dafa am cause bu tax ñu régler cause boobu beneen bi tamit mooy dañuy xool yow bi ñu sàcc sa alal alal ji foo ko defoon parce que boo ñëwee ba ci digg mbedd mi te dina la yor sa alal ñu jël ko yow yaa ko def est-ce que denc nga alal ji yooyu yëpp islam daf koy xool kon l'islam dafa ñëw pour régler sunu dund gis ngeen moo tax aaya bii gis ngeen di wax ci mbirum jëflante diggante ay jullit yàlla mu ne mbir mi nu mu munta toll ci tuuteeg bari nan ko bind ndax looloo gën a maandu ci sharia yàlla subhanahu wa taala ci yoonam wi mu bëgg ñun ñëpp ñu ànd jaar ci ne zalika aqsatu inda allahi looloo gën a maandu ci yàlla ci atteem ak ci shariam mu ne wa aqwamu moo gën a jub li shahaadati ci seede bind bi moo gën a jub seede lu tax yàlla wax loolu sama kado yi war naa ñëwaat de aqwamu lis sahadati lu tax loolu lu tax bind bi moo euh, bind bi moo gën a baax seede bi kuy tontu na nga yëkkati sa loxo bismillah
bind bi day kii waa des.
day des kenn du ko fàtte te seede bi déedéet bi boobu mën mën na na dee wala.
dee mën na fàtte mën na tukki mën na feebar ñu woo ko du mun déplacé wu mu mu nekk gis nga waaye bind bi moom moo da yàlla mu ne bind bi moo gën aqwamu li shahada wa adna alla tartabu wa adna moo gën ay aqrabu an la tasuk tasukku moo gën ngeen di sikki sàkk bi xilaafi shahada mu wuuteeg sa seede bi duuni kitaaba wuuteeg bind gis nga wa àddina moo gën allah tartaabu ngeen bañ a nekk suñu bindee mbir mi sikki sàkka dootul amati kenn dootul tuumaal moroomam kenn dootul ne lii la wala lële la dang ma lii wala dang maa lee déedéet ndax bindoon nañ ko leer na mi ngi nii ci kayit yi bindoon nañ waxtu wi waxoon nañ ñan la ñoo ko fekke woon waxoon nañ ñaata la waxoon nañ kañ ngay delloosi mbokk yi borom bi subhanahu wa taala mu ne illa an takuna lu dul mu nekk nag tijaaratan commerce xaadiratan bu teew tudiirunaha ngeen koy séqante baynakum seen diggante ci wàllu commerce waa ji dafa ñëw di jënd loolu am na ci yenn taux yoo xam ne comme du bor jaay ma am mu dem loolu jarul bind su fekkente ne nag li ñuy jënd ak li ñuy jaay bagage yi am na qualité xaalis bi bëri na wala bagage bi bëri na kon day laaj mu am loolu ñu naan facture diw sàngam moo ñëw ci place su sàngam ci waxtu sàngam di jënd marchandise su sàngam ci njëgu sàngam waa ji bind lépp ba pare nga jël xaalis bi jox ko mu jël facture bi jox la ndax anka boo demee nga gis ci loo xam ne baaxul wala njëg gi daf la nax wala nangam ëllëg ak si biir bu ñu wootee ci yoon yow nga am layu leer waaye bu fekkee nag fatu meew dong ngay jënd wala soow dong la wala juróomi dërëm gerte caaf ah loolu nag jarul seede jarul bind ndax loolu da nga koy jox rek mu jox la nga dem sa yoon moom la yàlla di ñu wax ne nii illaa lu dul antakuna mu nekk tijaaratan commerce boo xam ne xaadeeratun dafa teew commerce bu teew mi ngi nii jën njëg la ak lan ak njaay njaay maa ngi nii njëg baa ngi nii dagg nañ ko ba pare génne nga sa poos joxe nga jox nañ la dem nga loolu moom su fekkee lu teew la noonu moom wax dëgg yàlla loolu yàlla nee na jarul bind ndax lu teew la kenn naxu la mu ngi nii ci sa kanam tu diiru naxaa yéen ko séq baynakum seen diggante yàlla mu ne fa laysa aleykum junahun amuleen bàkkaar allah taktubuha ci ngeen bañ koo bind gis ngeen fekkee ne loolu la njëg la moo xam ne jarul seede jarul bind ndax xaalis bi nga génne joxe nga jox nañ la loolu moom bu ngeen ko defee jarul amuleen ci bàkkaar mais bu fekkonte ne nag bàyyil ba suba la ma fay la loolu jar na bind wala jarul bind loolu léegi kon nekkatul nekkatul njënd ak njaay waaye dugg na ci wàllu woowu ñu naan bor jox ma ma dem te ñëw nag waxul suba de dane ma dem te ñëw loolu lan la loolu ci lan la bokk jox ma ma dem te ñëw fay la daanaka jënd la su waa ji demee ñëwul nag boobu sax ci bor bi la bokk te ñu bari léegi noonu la ñuy def su ma ñëwaatee rek soo ñëwul nag waa ji nga romb mu naan la waayow lo nga naan gis nga am na yenn saa yi ñu naan la maa ngi dem te ñëw mu am weer non léegi léegi xoolal dama waroon jëli xaalis gars yi dañoo wàcc mujj gi day mot weer kon nag bind loolu yëpp bind la li yàlla ne buñ ko bind mooy mooy lan mooy mi ngi nii njëg gaa ngi nii joxe nga ñu jox la loolu bu ko kenn bind parce que jeex na amma loo xam ne xaalis bi teewul gars yi bu ñëpp yàlla yërmande loolu rek moo ñu indil problème ñun dañu ne ñun ñoo gën a baax yàlla moo tax it luñ ci jële problème ah yow kii si non kii kii li ma def yaakaaroon naa ne kii du ma def lii parce que yow yaa ko def yow yaa bàyyi li yàlla wax gis nga yàlla li mu wax saa yi ñu ko bàyyee rek ñu am problème mooy lii ngeen di gis nii tey ñu bari dañuy ñëw ne la maa ngi dem te ñëw wala su ma fi jaaraatee te di jëflante mbiru xaalis bañ ko bind te teewul ñu bari perte nañ ci alal ju bari yàqu na ci nettali naa leen waa jooju nga xam ne dafa jaayoon këram gis ngeen kooku ba léegi xaalisam bi xamuñu fu mu nekk ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na nit ñoo xam ne tey seeni million mu ngi naaw ba pare léegi nit ñi aussi lu ñu xewal mooy démb bi may seetaan émission boobu émission bi dafa jeex ma zappé télé bi mu dem wal fajiri ma fekk fa beneen émission bu gën a garaaw bi ma doon seetaan benn femme boo xam ne gorom daf ko liggéey liggéey bi mu def ko ci bopp néew beneen partie bi mu daaj ko ci gu- ci mu def ko ci béjjén daaj ko ci guy beneen partie ci liggéey bi ñetteelu xaaj bi mu def ko ci tàggu picc loolu ay année quatre-vingt-cinq la woon femme bi feebar nekk ci ay jafe-jafe mënatul wér mook jëkkëram parce que lu tax xale bu góor bi yaayam dana ko woon bul takk kii mu dem takk ko yaay ji ne ko doo ci am lu la neex jël ay bagage am jël alalam dem liggéey ji ndaw si ak waa ji ndaw si ak waa ji di wër ba gis sëriñ bi defoon liggéey bi fekk sëriñ bi boobu jeune la woon léegi màgget na ñu ne ko comme yow yaa ko defoon moom mu reconnaître ne moom moo ko defoon ñu ne ko léegi doo ko dindi mu ne mënatuma koo dindi parce que néew bi xamatuma fu mu nekk Eh, guy gi màgg na ba muur béjjén bi tàggu picc ba moom léegi nag am benn waay bu woote fekk nit ñaa ngi laaj lan moo tax nit ñi alku léegi bay dem ci armeel yi di di di suli néew yi am naa benn seede boo xam ne Hamidou moo ma ko indil kër ga ki toog fii borom ordinateur bi seede boobu lan moo ci nekk benn dëkk ci Niger benn waay dafa dee ci ngoon bi waa ji dee ñu dem suuli ko guddi jot benn buxaaba ñëw gas armeel bi ci digg bi ba mu xuut mu dugal loxo yi dugal bopp bi dugal dënn bi moom waa ji dugg ci biir ndeke sexe su néew bi la bëgg a dagg xam naa ni muy dindee mbalaan bi di dindi li ñu sàngoon néew bi ak di jàpp ci affaire bi di bàmmeel bi màbb ci kawam mu dee moom waa ji am nga seede léegi bi bët setee nit ñi ñëwoon ci armeel yi doon suul si néew ñu fekk waa ji tànk yi rek moo écarté wu ci kaw def nii li tàmbalee ndiggu waa ji ba ci bopp bi ak loxo yi kenn gisu ko bàmmeel bee ci màbb tànk yi moom rek lañ gis mu def nii ñu woo nit ñi autorités yi ñëw police ñëw imam bi ñëw bi imam bi ñëwee nag mu mujjee ñëw mu ne nañ ko génnee gaa yi xëcc tànki waa ji bi ñu xëccee tànki waa ji ñu gis nag awra bi ci loxo bi ak paaka bi nit ñi nag mer waa ji daa dee de mais ñu koy dóor di ko ruux ay bant ci bët yi ci gémmiñ gi diri ko jàppoo ko di daw génne ko armeel yi teg ko ci tali bi teg ko ay ay pono taal ko nit ñi bi ñu gisee ne dafa doon da doon dagg awra néew bi nit ñi loolu moo leen merloo gis ngeen fi mu nekk nii am na ñu bëri ci Sénégal dañ lay yoreel xaalis mais doo leen fayeeku xam ngeen lu tax dañuy jël liggéey dem ci armeel yi sulli néew ŋaangloo géej néew bi dugal ci gàllaaj gi upp bopp néew bi ne bu mu waxati ci bor bi bu mu waxati ci mbir mi néew bi nii mu noppee na waa ji noppee noonu noonu nu néew bi noppee noonu ngay noppee te loolu moo fi am wala ñu dugal ko ci suufu waa ji ñu ne nii waa ji tëddee na tëddee noonu affaire yu garaaw a garaaw a garaaw moom lañu moom la ñuy def ci néew bi léeg-léeg ñu dox ko jigéen ñi benn waay mu ne mais loolu est-ce que nit ñeme na ko def est-ce que jigéen ñi ñeme nañ ko def kenn daal di ne waaw yenn saa yi dañuy jox gardien ñiy garder néew yi ñiy garder armée li ñu def ko xam ngeen ñi garder néew yi municipalité bi du leen fay bu ñu suulee néew ba pare lu ñuy wax lu waaye mën ci ku doon gas ay cent franc cinquante dix franc vingt cinq buñ ko dajalee du mat sax six mille bëri bëri cinq mille lay doon wala quatre mille bu benn waaye dawalee quatre quatre bu ñuul kuk ñoo yor ngandum liggéey ne la moo bëgg lii nga defal moo ko ci bopp néew bi néew bopp néew daal lay jox benn enveloppe nga ni nii enveloppe bi mu di trop nga kii nii gis ay biir yu bëri looy def
ragaloo yàlla
waxuma sax loolu waxuma sax néew yi mais da ngay gis ku gàddu téere ñëw ci uude bi ne ko téere bi boo ko yow doo sol tubéy waxal loo bëgg nag ma fay la wala boo ko yow ci daru xaj ngay toog wala boo ko yow bul jàpp wala boo ko yow da nga am da nga am janaaba gis ngeen Sénégal xërëm a ko yàq xërëm ndax xërëm a ko yàq genn wàllu réew mi yëpp dañuy xërëm xërëm biir xërëm biti ba pare bëgg a nekk ay jullit loolu moo tax suñu diine ji mënu tabaax xam ngeen ne lenn saa yi ngay wax wax nit ñi di di di ko di ko gam-gamlee ma ne mbër yi di bëri kuñ ci ne boo sullee yaxu néew yow yaay daan di nga ko defal doo ko def ah parce que affaire bi egg na foo xam ne foog nga dem def ko nañ bàyyi ba beneen yoon ñu def dars ci loolu kese parce que tey loolu dafa yàq sunu sunu heure nañu yàlla jubal ixwaan yi sunu boroom li mu ñu wax rek mooy dëgg mooy lan wa ashhidu na ngeen seede na ngeen seedelu iza tabaayatum su ngeen di jaayante bu fekkee njënd ak njaay iza baa ahadun ahad daaran kenn ci yéen guy jaay kër aw bustaanan wala tool aw xaywaanan wala fas wala nag wala xar yashhadu ala zalika al bay nañu seede njaay moomu lii kay leer na nañ borom bi nee na nañu wut ay seede bu ñuy jënd ak bu ñuy jaay booy jënd dara utal seede booy jaay dara utal seede yàlla moo ñu ko wax yàlla ñu xam waa ji jënd lu mu baax baax yow miy jaay loo baax baax baax baax yàlla nee na doyu leen yéen ñaar ñooñu rek doyu leen na ay seede ñëw moo tax mu ne wa ashhidu na ngeen seedelu iza tabaayatum bu ngeen di jaayante wala yudaara bu ñu lor kaatibun bindukat bi wala shahid ki doon seede it buñ ko lor nan la ñuy loree bindukat bi e kaay yow tël pes yaa ko bindoon ah waa ji moom bu ñu koy bind fayuñu ko ñu bu ko cee indi comme police ni muy def li tax léegi koo ne kaay dem police seede mu ne seede wu ma tey seede wu ma ëllëg da ngay ñëw ñu naan yow yaay seede bi yow taxawal fee ñu commencé laa wàññi beneen yoon ne bu ñu nekk waa ji seede ñu naawal ko yenn saa yi ñu pes ko mu ñibbi këram suba ñu woo benn mbokkam seede lu mu koy wax ay yëpp man de ba ma demee kon yàlla nee na loolu daganul bu ñu sonnal ki bind bu ñu sonnal aji seede ji ndax ñooñu dañoo defoon rek ngir yàlla bindkat bi moom dong moo mënoon bind ñu woo ko kaay bind kon bu jamono ji jotee buñ koy woon nañ ko ne ah waaw yow de yow yaa ñu dimbali woon kon nag ñëwal rek nga leeralal ñu ki doon seede it bu jaree ñu jox ko paas nañ ko jox paas buñ ko woo fu mu munta dem mus naa nekk ci oto di dem Casamance di fa defi benn programme islam benn gendarme mu jàpp suñu chauffeur bi bi mu ko jàppee mu ne ko jox ma 2000 waa ji bañ mu ne ko bi ngay ñëw da ngaa accès de vitesse dama lay jàpp waa ji mu ne ko jàppal mu mu ñu ñëpp mu wàcc ñu oto bi mu bind bind bind ba pare mu ne waa ji signel waa ji mu ne ko signé wu ma mu ne ya signé woo baax na tamponel sa loxo waa ji mu ne tamponé woo mu ne ñu mu ne ñu ñun ñu nekkoon ci oto bi kaay leen yéen kaay leen ñu ñëw mu ne léegi yéen yéen a ko fekkee da ngeen di seede ne moom mii dama ko ne signel mu bañ ma ne ko waa bismillah acca bind sama tur jox ma jox ko sama carte mu bind léegi waajooju xoolal fu mu nekk Casamance man may ñibbi Dakar su ma fi toogoon mu ne ma ñu woo ma ne ma ñëwal seede nga defen damay dem nga defen dinaa dem fenn laa dul dem naa jógee Dakar ba Casamance naan damay seede ji man kay doxoon ma ne ko loolu dama ko ne bind rek dañuy dem suñu yoon mu daal di bind ñu ne ma yow yow ay seede jóge ma ne ko bàyyi la ko mu bind mu daal di jël sama kaaraan daal di bind ñu jox ñu suñu pièce ñu dem suñu yoon xoolal xoolal banditisme boobu caaxaan yooyu ah da koy xotti du demul fen muy muy sóob suñu kanam lay ñàngal noonu rek parce que waa ji jox ko 2000 waa ji mu ne ko du ma jox dara mu bind pare mu ne signé waa ji mu ne signé wu ma mu ne indi sa baaraam waa ji mu ne maa bañ mu ne ñu nag ñun ci oto bi il faut am ko seede ma ne ko bismillah indi fa la ñuy signé mu ne fii ma signé waaw mais dinañ la woo dinañ la woo maa ngi naan ko sama xel xaar ba ma ñibbi Dakar rek nga woo ma nga xool waaye fan laa dul ñëw bu ñuy ñibbi Dakar mu naan day Casamance i font rek gis ngeen yàlla subhanahu wa taala mu ne mbokk yi wala yu daara bu ñu lor kaatibun bindkat bi kenn moo moom dañoo amoon problème mënuñoo bind ñu woo kenn mu bindal nu bu ñu demee ba am problème bu ñu lor bindkat bi wala shahid bu ñu lor seede ji mu ne nag wa in tafaalu du lool la fa innahu fusuqum bikum allahu akbar bu ngeen loree bindkat bi wala ngeen lor seede bi su ngeen defee lool fa innahu naka loolu ngeen def fusuqun kàccoor la tooñ fusuqum bikum da ngeen leen a tooñ ak kàccoore la jaaduwul kon sunu yàlla waxee gis nga ay xurujun ani taati rabbikum génn ngeen seen yoonu boroom waaw am ngeen bàkkaar ndax yàlla lim leen waxoon mooy dimbali leen bu leen lor bindkat bi bu leen lor kii seede yéen nag léegi lor ngeen leen ndax yóbbu ngeen leen benn fu ñu buggut a dem wala pes ngeen leen wala xatal ngeen leen wala gëdd ngeen leen wala yuuxu ngeen leen te ñoom dañ leen doon dimbali rek loolu yàlla subhanahu wa taala daf ñu ci dànkaafu pour ñu bañ koo def mu ne wattaqullaha ragal leen yàlla gis ngeen aaya bi yëpp ni mu guddee aaya bi lan la commencé woon yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm aaya bi fan la ko yàlla di tëjee mu ne wattaqullah ragal leen yàlla moytu leen yàlla nan la ñuy ragalee yàlla mooy lii yàlla dinu jàngal nanu ko def yéen borom bitig yi kuy leb kilo ceeb bind leen ko kuy leb saabu bind leen ko waaw non da ginnaaw suba rek jarul bind ah ne ko yàlla neen nan ko bind boo ko bindul waa ji ndaw si ñëw wala waa ji ñëw nga ne ko mu ne la déedéet man jëluma fi dara de kañ laa ko fi jël kañ la kañ kañ ah nga naan ah du yàgg mu ne la déedéet man jëluma man li may jël yëpp am naa fi benn kaar ne anani anani jàllo awi nday am naa fi benn kaar ne ci laay jël te bii kenn bindu ko ci lu tax bindoo ko ci parce que moom dafa la ne maa ngi dem da ñëw rek maa ngi dem da ñëw bind ko ne ko taxawal taxawal nan ko bind lu tax ñëw ko bind yàlla moo ne saxiratan aw kabiratan moo xam dafa tuuti moo xam dafa rëy yàlla ne nan ko bind même bu dee saabu la nan ko bind beneen bi mooy yowmal xiyaam lañ jël te wallahi ku fa yóbbu fistinu jàmbur doo dugg àjjana fistin fistin boo ko fa yóbbee ak jàmbur doo texe dars bi passé waxoon naa leen waa ji am ñaari boru dinaar yonent bi bañ koy jullee ñaari boru dinaar la waa ji am yonent bi ne jullee leen seen néew wane ginnaaw te ñun tey ay milliards yi bor lan yor waaw da ngay gis li ma leen wax sànq ku dem leb ba pare dem jël benn téere dem ba ci armeel yi fexe ba gas néew ba gis bopp bi nga ubbi gémmiñ gi bopp bi néew bi nga ubbi gémmiñ gi dugal ci téere bi keppaat bopp bi suul ko ñibbisi waaw ne waa ji ni mu néew bi ni mu noppee noonu la waa ji di noppee ci xaalisam bi dootu la fayee ko waaw nga defee yëf yi daal di jàpp waa ji da ngay dajeek moom ci jàkka sax mu fàtte ne yoral nga ko bor waaye léegi nag moom bañ ne laa fayee ko noppi na yow kontaan nga yow mal xiyam nag boobu mooy wax bi léegi nag egsi ngeen yow mal xiyam nag yàlla arrière film bi nag nga toog di xool ndaw gàcce ñu ne la xoolal néew bi yow yaa ko silli woon pour waa ji na noppi xam nga ne yow doo dugg àjjana jëf jooju xool nu mu ñaawee xoola ki dem ba ci armeel di dagg awra awra awra néew laa ilaha illallah keneen ki lan la def papaam daa dee amoon ñeenti jabar amoon alal waa ji am benn kër bu mu bu mu bu mu bëgg a lewal ci kër yi mu dem jël këyitu kër gi mu dem bàyyi ba armeel yi wéet mu dem gaspaa bi gas ko gas ko ba jot ko daal di jël loxo bi def ko ci tampon tamponné kayitu kër gi ne paa bee ko ko may mu jël loxo néew bi tamponné ko pour lan pour ëllëg bu nee ni mu ne lii tampon paa bi la xool leen ñoo ngi nii carte d'identité mbaa ngi nii même tampon la xool leen gis nga nit ñi fu ñu toll loo xalaat rek nit ñaa ngi koy def ndax alalu àdduna nga dem ba ci ay armeel di sulli néew di ko kaseloo kase di tamponné inna lillahi wa inna di kaseloo néew bi kayitu kër ngir lan bu ñu demee tribunal bu ñu xoolee carte d'identité bi ñu xool tampon bi ci ñu ne ah dëgg la de waaw mayoon mayoon na ko de mu ngi nii waaw mu ngi nii lii moom leer na nañ waaw waa ji ana diw ñu ne ñu ne yow yaa moom kër gi allahu akbar ahsaahu llahu wa nasuuhu ndeysaan nga dem toxu jël say bagage dëkk nag yàlla di la xaar laa ilaha illallah ay fan rek nga dee ñu ñëw nag suul la yow man xiyaam jot nga génn paa bi génn nit ñi génn yàlla mun a ñëw leen ci tribunal bi tey alaysa allahu bi ahkamil xaakimin nit ñi nañ ragal yàlla alalu aduna yi amul benn njëriñ alal joo fi donn di nga ko dee ba ko fi alalu jàmbur joo fi jël doo texe mukk ëllëg dugg aajana lu dul nga fay ko lu ko fi jar jël terrain yi jàmbur da ngay gis benn waaye bu jël benn terrain jaay ko fukki nit fu ñu ko woo rek mu buux fa ay cent mille ay cinquante mille ñëw taxaw ak gramme bu bam waaw ñu ne waaw waaw waaw waaw affaire bi garaawul ajaat nañ ko benn waaye dafa détourné 30 millions 30 ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi benn nijaayam ñëw ci kaso bi ne ko ñaata nga jël waxal dëgg rek mu ne 30 laa jël 30 mu ne ko ana xaalis bi mu ne ko mu ngi place sàngam ak sàngam ak sàngam ko d'accord nijaay yi ñëw jël 5 millions yi dem ub fëgg juge bi ñëw ci bureau juge bi toog anamu ñu ne mu ngi ci biir mu toog ne ko dafa am ku ko soxla mu ubbi bunt bi rek fekk yàgg na mu ngi bugg a wàcc muy bunt bi rek mu gis kenn toog mu- kooku ne ko euh, monsieur le juge dam mu ne ko non non non non xool damay wàcc kooku ne ko non déglu ma ba pare rek dama la soxla mu ne waa cinq minutes ñu dugg mu ne waaw xam nga sama sama jarbaat boobu société sangam te ñu doon wax affaire détournement yooyu mu ne ko i ko kay xam nga ne dañ koy tëj yaa ko tey dañ koy tëj mu ne non non c'est que ñu ngi doon 5 millions yi mu ne eh eh noppi indi indi daal non ah ah waaw noppi eh eh eh eh bu ko bu ko ñu bëri yéega dégg nga man ak yow rek dégg nga amul problème lundi ngeen ñëw lundi ñu ñëw waaw ana diw ñu ne ñu ne waaw bon affaire bi comme amaguñu lu leer léegi dañ lay bàyyi euh, kii procevoir après léegi demal après dina la leen woo waa ji daal di génn këram dem ñaata la jëloon léegi dese na ñaata waa ji génn dugg ci kat katam romb waa société boobu ne leen booy ciao gars yi alors bye bye ba léegi kenn woowu leen ba léegi loolu léegi mën na ñeent fukki at ba léegi kenn woowu leen kan lañ leen di woo yowmal qiyaama kan lañ leen di woo yowmal qiyaama tey loolu ñu bëri fi am alal noonu la ñu amee alal yal leen yàlla dimbali mbokk yi euh, sunu borom nee na subhanahu wa taala wattaqullaha ragal leen yàlla wa yuallimukumullahu yàlla xamal leen gis ngeen ku bëgg a am xam-xam ragalal yàlla soo ragalee yàlla rek yàlla may la xam-xam wattaqullaha ragal leen yàlla wa yuallimukumullahu yàlla xamal leen wallahu yàlla alimun ku xam la bi kulli shay aaya bi benn xikma bu ndaw mu ngi ci fin bi lii yàlla wax ñu yëpp mbirum lan la mbirum xam-xam mbirum jëflante mbir mu lëndëm la ci biir parce que ñii mën nañ fekke ñii duñ fekke ñii mën nañ dee këyit gi mën naa réer seede yi mën nañoo fàtte mbir mi yëpp waaye yàlla mu ne wallahu bi kulli shay'in alim loolu ngeen séq yëpp man yàlla xam naa ko maa ngi toog nag di leen xaar su ñuy fàttee bu ñuy deewee bu mbir mi réeree bu ñuy tappalee bu ñuy triandee bu ñuy waree man yàlla wallahu bi kulli shay'in alim lépp xam naa ko man moom duma fàtte te lépp laa xam bi kulli shay alim est-ce que loolu am na ci àdduna bi koo xam ne alimun bi kulli shay yàlla nag wallahu bi kulli shayin alim yàlla lépp la xam xanaa ni dina ne waaw xanaa lii sax lii yàlla waru ko xam yàlla xam na loolu laa yaxfa alayhi shayun fi l ardi wala fi lsama yaalamu xaainat al ayun wa ma tux fi sudur fu ngeen mën a nekk yàlla nee na maa ngi ak yéen maa yakunu min najwa salas illa wa huwa wala adna min zalik wala aksar illa wa huwa fu ngeen mën a ne yàlla nee na xam naa ko wallahu bi kulli shay'in alim kon ci aaya boobu la ñuy yem ba samedi insha allah ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh